mbokk yi ba tey ñu leen di toppal mbër yi nga xamante ne ay champion lañ war a bëre ci journée bi euh, bu ñu nee grand combat bi tudd mbay Tine 2 mi ngeen xam mel mi champion bi nga xamante ni macha allah bërikat la ak dab daan mi nga xamante ni moom la war a dajeel doon journée boo xamante ni arène nationale te ku bënn saañ ba réer la ndax ñoom ñaar ñaari bërikat lañ ñaari mbër lañ yoo xamante ni mbër yu am public lañ dab daan maa lay nuy waa maa lay ziar maa lay fay. di nuyu xam di sant yàlla bu baax julli si yonent bi. di sant sama ñaari waajur di sant jam ñaajo bi yëpp 1 ba 22 bàyyiwuma kenn waaw di ñaanal suma gaay yi xam nga di sant ñi ma àndal ku mel ni armée bu ngéwél di ko ñaanal jàmm di sant Baylaat Diané sant Balla Ndiaye di sant Zé di sant sama gaay yëpp bàyyiwuma kenn waaw. lan moo tax nga jël mbaytin waaw li tax ma jël mbaytin mbaytin sampion la ndaanaan la bërekat la def na ay preuve ba yàlla boole kook man làmb boole ñu war a bëre xam nga loolu moo tax ma jël ko. parce que nit ki xam nga képp koo jël rek xam nga làmb la parce que ñaar ñu taxaw war a bëree rek xam nga nit ñi am yaakaar ci ñoom moo tax ñu tëgg leen loolu tax ma jël ko ci làmb parce que ndaanaan la parce que soo xoolee am na kuñ ma njëkkoon jox biir géejawaay mais après gars yi na ma ndoo xam mbaytin moo ëpp safara moo gën a saf jël ko ma ne leen na ñëw ñu bëre comme ça làmb ji mën a neex waaw loolu moo tax ma jël mbaytin daal Mbaye Tine mbër moo xamante ni wax ngeen yéen ñaar mu xool ni communication am ni muy waxee yow dafa mel ni def lay tuutal daa mel ni yow fi mu toll nii sifflet arbitre moo la bàyyi ci làmb ja est-ce que yaa ngi préparé loolu seen diggante yéen ñaar. waaw ku ko dégg day mel ni daf ma tuutal parce que euh, waxu mbër la muy man muy beneen mbër xaw bu ñuy wax ak yow xam nga day mel ni nawlawuñ mais Mbaye ku ko yeewoon guddi na ko dab daan nga xam nga ni moo ngi waaj waaw ku ko gis ni mu ñëwee ci tay xam nga te làmb ji jàppaguñ dat kon moo ngi waaj. ñëw na fi ak lu ne sooteeku na ay biteel def na lu nekk ba pare nag xam nga nawloo ma la kon loolu mënul nekk man tey ba ma ñëwee gisoo ma gisoo ma diwoo dara gisoo ma raay dara parce que làmb jugee sa kër am na loola non laal ñu dara dañu def dañu def faatiya salaatu faatiya génn waaw yéeg suñu oto ñëw parce que non taxuñu dara sama dégg téere sax amu ci mais loolu yëpp xam di ci woo ku ci mel ni monsieur le maire Modou Moulaye Gueye dama koy wax fu ma toll di ko woo parce que man doomu jam laa jam laa dëkk moom sum papa la na du neex ba mu doon leneen lu dul sam papa jam nag yaatu na yàqkat yi bari nañ mais nit ki soo jiitoo del déglu ñuy defar ma lii may wax nii xam dama waxoon euh, du ko wax. wolof daf na junj doy na borom xel mais bëgg nañ ñi nga xamante ni euh, dañuy seetaan te xamuñu nga gën leen koo faram fàcceel ba ñu comprendre. ñu gën a leeral. kani moom tey ñun xam nga foog muy déglu ñenn ñi mais foog muy bañ a déglu ñenn ñi parce que ku lay euh, ak sa doomu dëkk jàppal ni kooku du sa nit te kon li ma wax sànq dama nekk ci làmb du ko fàtte mukk mu ne ma yow loo bëgg ci làmb am ko ekkati dix mille francs jox ma ne man maay sa premier supporter moom ak soxnaam Fandiaye Agnès ñu nekk ay nit ñu baax man du ma fàtte démb lu mën a xew tamit karaawul mais sama kii sama papa la kii suma yaay la di leen wax ni nag man seen doom laa am naa làmb am naa combat te am na mbir buñ fi nekkee. combat bu laaj. bu laaj jàppale. moo tax rek moo tax depuis boobu maa ngi koy joxoñ moom meeru Diamniadio li nga xamante ni ah, moom la mbër yi am. xam nga na ko ñëw teg ko ci table bi ñu pare suñu combat làmb dañ koy pare xam nga yàgg nañu jàppale ci làmb mais dama xay ñaan bii làmb ji avant combat bi nii nii nii nii nii si wàccaay li na génn jàpp ci parce que avant combat xam nga ah, la mbër di gagné combat mais duñ bàyyi ba jouru làmb pour ñuy gagné combat ma xay tàllal samay loxo di ko mu ñëw jàpp ci combat bi ku fi mel ni Adama Mbaye koo xam du ma ko sax woo naan ko ñëwal. wax dëgg fa yàlla parce que kooku lépp lu ma ne moo fi lu may wax nit ñi nee naa. dinañ ci ñëw. mais man li ma gën a jaaxal mooy mbaytin bi ngeen taxawee yéen ñaar bu ngeen xoolee ci poids moom moo la ëpp dayoo moo la ëpp poids mais mu ngi lay wan ni ci poids boobu mu la ëpp ak gi moo la ëpp doole est que euh, état bi nga yor moom parce que ku arrière. Euh, xool fii ak euh, un an ci ginnaaw ak nii ñu xam ne macha allah yokku nga est-ce que combat bi yéen ñaar pare ngeen pour jàppante xeex wala jàpp nga ne yow yaa ëpp doole mbaytin incha allahu rabbi mbaytin yàlla xam na ni maa ko ëpp doole li may wax ni gëm-gëm la moom ëpp poids moom ëpp masse mais maa ko ëpp doole parce que lu mu dee dee dee su ma bañul wax sama poids su ma matul cent kilos yi jege naa ko matuma ko mais jege naa ko. pour ñu yem foofu parce que di wax sa poids xam nga rek ci mbër yi ñun mooy waaw su ma xamatul jege naa ko. waxoo ay moccikatu bopp la yor kay. non si bopp la yor mais tamit xama nga jar nañ bàyyi xel moccikatu bopp yooyu noonu. waaw parce que kuy faj bopp buy metti mën nga mën leneen quoi. waaw mbir mi loolu la. di ko wax dara wallaay maa ko ëpp doole kuy coucher cent kilos am nga doole kuy squat cent cinquante kilos am nga doole. te li ma lay wax nii yaay fi maa ngi fi soo bëggee danga nga may seet si jam ñaajo nga fekk ma sama entraînement nga xam waa ji lan lay daj su boobaa dina xam ni kii muy waxal nii borom doole la te du làmb rek laa def dama wax naa ko si biir wax damaa jàng xeex soo ko dugg si làmb. yàlla xam na ni kenn du ko ko digal Lac de bi mu ne ma jàngal xeex mën naa ko jàngal xeex waaw di di ko wax lu leer man Boy Niang suma nit la suma xarit la dafa am lu ñu boole man ak moom lu yaatoo yaat di ko ñaanal jàmm di ko wax ni xam nga gëj naa ko dégg mais xëy na xam nga jamono moo tëddee noonu boo ñaa Pikine doomu dégool waaw boo ñaa de suma xarit la di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal combat am bi mu jëm yàlla na ko fi yàlla defal jàmm di wax ñun fàttewu ma ko parce que xam dafa am lu ñu boole man ak moom muy kilifa gu baax di koy wax Cheikh Moustapha Mané yàlla dogal na génn àdduna mais kilifa gu baax lu mën a xew man ak moom duma ko bàyyi suma nit lay doon parce que xam nga boobu noonu moom laay sàmm. am na solo ma lay bu baax a baax baax. waaw léegi xam nga ma ñëw si sant rek kon xam nga di woo Adama Mouhamed baay di ko wax làmb ji làmbam la kooku man ak moom nekkatul ay xarit ay du ay mbokk lañ sama dereet la di woo Pape Amandaw Seck di woo Moussa Kambi di woo élage Hadj Baba Mal surtout El Hadj Baba Mal lan la wax dab gaawal dat am rek nga wax ma loo bëgg ci combat bi ak noo ko bëggee xam nga di ma jàppale tout le temps di ma jàppale lu ne. di ko ñaanal jàmm ne ko xam hélas Baaba Maal xam kontaan naa trop si yow dundal dundal lu bëree bëri parce que yow xam sa dund amul na njariñ xam nga waaw loolu lu may wax xam di sant sama famille yëpp waaw wasalaam di sant waa jam ñaaju 1 ba 22 ma kenn na ñëpp ñëw ma jàpp mbaytin si kàttanu yàlla kon li ma wax du fi dellu pa mbaytin su taxawee ma daan ko billaay wallaay taalaay maa ko mën maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre maa ëpp jàppale